ñi ngi fi tey euh, commune Mbambilor ci cadre projet bi ñuy woowee FMM Glow 132 MUL bu nga xam ne FAO moo ko euh, sookee lëkkaloo si ak ay partenaires euh, comme SICODEV comme ENDA ECOPOC comme PAEDD léegi nag ñi ngi fii ak acteurs yëpp pour gën a yokk liggéey bi ak ñoom ñu xam déjà projet bi lan la lan la lan moo ko tax a jóg ñu liggéey ak ñoom dal di recueillir sen ay besoin ci loolu nak lañu mëna mën basé pour mëna a euh priorité nga xamanteni localité bi amna ko sur question yi nga xamné moy mooy les questions d'alimentation et de l'agriculture. agriculture. daje biñ fi am tay dafa nek ci benn projet buñu buñu bu ñu commencé projet de gouvernance la sécurité alimentaire. projet nak euh, bon dañ ko def fi ci Bambilor ci ndimbalu FAO.

il faut nga xam ne ci biir sécurité alimentaire boobu ñi ci bokk dafa war a bëri euh, agriculteur baa ngi ci producteur baa ngi ci transporteur baa ngi ci boutiquier baa ngi ci ménage baa ngi ci consommateur baa ngi ci ñëpp a ngi ci biir même école yeeg ñoo ñëpp ñu ngi ci biir loolu nag su dee danga koy def mënoo ko def tant que waxtaanoo ak ñoom ngir xool lan lañ fi jot a def yan jafe-jafe lañ ci am ak naka lañ leen war a tàggatee ba nga xam ne li nga fiy liggéey tey ci at bii di ñëw suñ ci paree ñoom ñu mun ko jël daal di koy wéyale. Eh, xalaat nañ bu ñu paree ci ñaari fan atelier yi eh, liñ ci séentu dinañ ko ci am séentu ko mooy li ñu bëgg ci askan wi taxawal ay cantines scolaires taxawal benn cuisine eh, scolaire boo xam ne suñuy sœur suñuy rakk ñooy togg di jox suñuy doom pour ñu mën a rester ci biir école yi donc loolu mooy objectif bi FAO dinañ ci accompagner. Euh, ONG yi dinañu ci accompagner commune bi dina jël moyens yi mu am def ko ci pour que jigéen ñi nga xam ne dañuy transformer produit ak producteurs yi nga xam ne dañuy bay ñu mën a jënd li ñuy bay di ko indi ci cantine scolaire bi pour di ci mën a toggal suñu njaboot. bu ñu amee moyens yi nga xam ne FAO dinañ ko jox ak moyens commune bi ñu am nit ñu ko sox ñu ko bëgg pour mën a taxawu liggéey bi yaakaar naa bu boobaa li ñu ci bëgg dinañ ko am.